wala murid yi déglu leen ma yaalaan ci biir Seex Anta bu leen na la maam Seex Anta Mbàkke maam Seex Anta Mbàkke ñu gën koo xam ci borom dërëm ak ngërëm di kenn ci njabootug Serigne Mamour Anta Sali Mbàkke bokk ak Serigne Touba Xaadimu Rasul wenn waajur bu góor moom nag mi ngi askanoo ci ñaari waajur yu sell yu di tànneef di Serigne Mamour Anta Sali Mbàkke ak soxna Asta Waalo Mbàkke ñu gën koo xam ci soxna maam Anta Ndiaye Mbàkke mi ngi gën jamono nag ci dëkk bi ñuy wax Poroxaan atum 1866 Cheikh Anta Mbacke nag waajuram mi ngi ko tuddee ku ñuy wax Mouhamad Ibnu Habiballahi Sidil Mokhtar ba mate dal jàng nag waajuram di sëriñ Maam Anta Sali moo ko daral jàng ginnaaw bi mu boole ko ku magam maam Thierno Birahim borom Daarul Muxti jébbal leen ku ñuy wax sëriñ Ñang muy woy di continuer am jàngam ba mokkale al alxuraanul karim ci sëriñ Daam Abdourahman Lo waaye kii di magam di sëriñ Mamadou Diarra borom Saam moo ko jàngal xam-xam ginnaaw loolu mu dellusiwaat ci loxoy magam sëriñ Touba Xaadimu Rasul fekk booba waajuram di sëriñ Mamoon Anta Sali génn àdduna mu jàppee Serigne Touba Xaadimu Rasul comme na mu jàppee woon waajuram wu sell woowa di ko xoolee mu topp ci ginnaaw magam Serigne Touba Xaadimu Rasul ci dëkk booba di Mbàkke Kajoor mu woy di xoole magam Serigne Mamour Anta Sali Mbàkke ba ni Serigne Touba taxawale yoonu murit ci atum 1883 mu woy di topp ci ndigalul magam jooju ba ni Serigne Touba Xaadimu Rasul jugee Mbàkke Kajoor ba ñëw ci dëkk bu sell boobu di Mbàkke Bawal ginnaaw Mbàkke Bawal mu ñëw Daaru Salaam ginnaaw Daaru Salaam mu sañ ci Touba ba Serigne Touba Xaadimu Rasul taxawale dëkk bu sell bii di Touba la jël dëkk boobu di daaru salaam jagle ko maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan ak daaru salaam teewaaye Serigne Dame Abdourahmane Lo maam Cheikh Anta Mbacke nag bokk na ci kilifa yu njëkk seex ci yoonu murid ba ci sax borom xam-xam yi wax na ne maam Cheikh Anta Mbacke la Serigne Touba njëkk a jox ab dëkk ba noppi boole koog mbooloo bokk na ci njëkk seex googu mu njëkk a seex ci yoonu murid bokk na ci li waral turu maam Cheikh woowu mu wéy di des daaru salaam di liggéey ak jaamu yàlla lu am jox magam ju sell joj di Serigne Touba Xaadimu Rasul ba ni Serigne Touba demee ci géej gi mu wéy di toog daaru salaam ak ak topp ndigalam ba ni Serigne Touba Xaadimu Rasul dellu see mu bokkoon tamit ci ñu seeti woon Serigne Touba Xaadimu Rasul te dëkk boobu mu nekkoon di Gabon ginnaaw bi Serigne Touba Xaadimu Rasul jugee ci tukkib géej googu ba ñëw Daaru Salaam ci rakam ji seetlu jot di maam Cheikh Anta amal fa nganu juróom-ñetti fan ca ngan googu nag mu nekkoon ngan goo xamante ni kenn mënu su ko misaal maam Cheikh Anta nag di borom dërëm ak ngërëm nii la nekkee di Serigne Touba Xaadimu di topp ay ndigalam ak bàyyi ay tereem di digle lu baax lu ba xëy wéy ji sunu borom ci bisub alxamis ci ñaari fan fan ci weeru tamxarit ci atum 1360 ci gàddaay gi dëppook alxamis fanweeri fan ci weeru janvier 1941 ci Daaru Salaam maam Seex suñu borom yokk ay leeram te tas ñu ci barkeem mbirum